gannaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp ma wax ni ñaareelu pàcc bi lañu ñu war a traité man ak euh, honorable Aïda Mbodj muy li nga xam ne dafa toftalu ci li ñu waxtaanee ci seminaire bi waaye annoncé woon nañ ko ay jamono ci gannaaw Yewwi Askan Wi coalition politique la bu dëgër coalition politique boo xam ne dañ ko lal ci ay ponk ay gors bokk ko waaye it ñu lal ko ci ay jubluwaay yu leer nañ yoo xam ne mooy objectif bu coalition bi coalition Yewwi Askan Wi mooy li gën a màndargal ni ki ñu faloon mu fàtte li ko fal ba jàpp ni moom dafa donn ba tax mu ne lépp luy opposition ci réew mi dina ko faagaagal te li gën a màndargal ni loolu lajj na mooy yeewi askan wi ndax leer na ma ni tey fu mu toogoon ñu tegal ko boolu ceeb bu baax sax bu xelam demee ci yeewi askan wi rek boo moytul mu suur kon léeg-léeg spéculation yi am wala ñu bindloo ay nit naan yooyu askan wi léegi mu tas rivalité diggante Masamba ak Mademba yooy ay manœuvre politique la waaye ñu dalal xelu sénégalais yi ni kóolute gi ñu am ci yeewi askan wi kóolute googu ñun ñii ñu ngi sàmmanteeg moom parce que responsabilité la te non seulement fi mu nekkoon ma nga fa ba léegi waaye ni mu tuuti tuuti lu ëpp fukk ak juróom ci ay parti politique ak ay organisation déposé nañu seen candidature pour mun a ñëw yokk ci Yewwi Askan Wi looloo tax nag ñu jàpp ni mënuñu rekk ne fal nañu ay nit xeex nañu dem ci élection fexe ba ñu fal ay maire pare nañ ci maire bu nekk ñu bàyyi la ak sa bopp bu ko defee xam nañu réew mi ni muy doxee noggatu gu ñu ta yàgg di noggatu maire yi yenn ci maire yi bokk surtout ñu delloo si loolu wala lenn lu nit ñi di xalaat ni boo nekkee opposant nekk maire waroo mën a def dara ci sa maire yi moo wax ni loolu amul tey amul ëllëg au contraire man de yàlla def na ma maire waaye gisuma ci àdduna kuy dund di yi ngelaw yàlla gi te mën maa tere ma def résultat yu mag a mag a mag fee ci si coor allah parce que constitution ak loi wu dëkk bi dañoo jox ay attribution yu leer nañ mairie bi niñ ko joxee pouvoir central bi maire bu sàggan nag ba pouvoir central bi ñëw jalgati loolu joggati la yow yaa bëggul liggéey waaye pour bañ ñu fragiliser suñu maire yi moo tax nañu ne ñu ne nañ leen dajale ci kuréel gu bees goo xam ne bokkul ak association des maires du Sénégal bi ñu xam fii parce que ñun dañoo am ay objectif dafa am lu ñu bëgg ci mairie yi ñu dénk ak président conseil départementaux yi ñu dénk dafa am lañ ci bëgg ñu bëri ci ñun pour ne pas dire ñëpp sax dañoo ñëw àndaale programme bi ñuy ñëw loolu du lu ñu tàmm gis ci élection département wala commune waaye dañoo dañoo fenk ay programme ñëw présenter askan wi ay programme am yéene nag ni programme yooyu bu soobee yàlla dañ koy appliquer ñu ne nag maire yooyu ak président conseil départementaux yi soxla nañu ku leen jàppale ci encadrement ci formation parce que loo gis rek da koy jàng dànk-dànk ba keroog ngay mokkal moo tax ñu ne dañu ànd sax taxawal benn kuréel boo xam ne objectif bu njëkk mooy suñu maire yooyu faluñu leen rek fàtte leen suñu président conseil départemental faluñu leen rek fàtte leen suñu quatre-vingt-un yi bëgg nañu ñu continuer am benn lien bu étroit ñoom ak conférence des leaders waaye ñoom ak coalition bi leen fal te loolu mi ngi jaar ci ñu am benn plateforme boo xam ne dinañ leen offrir ay formation bi benn rek la woon wala ubbite bi rek la woon mais régulièrement dinañ leen woowaat ci yeneen euh, thème yoo xam ne yu ñuy tànn la jël ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu ñëw former leen ci loolu parce que dañu bëgg suñu maires yi nekk les meilleurs maire du Sénégal dañu bëgg suñu président conseil départementaux yi nekk les meilleurs du Sénégal également loolu loolu bokk na ci objectif bu ëpp solo wala ci benn ci ëpp solo ñu ne it war nañoo mutualiser mooy lépp lu ñuy jànkonteel ci jafe-jafe ci ni ñuy liggéeyee ci biir mairie yi kenn ku nekk waruñu ko bàyyi rek moom muy nekk ci jafe-jafeem ak administration déconcentrée nekk ci jafe-jafeem diggante moom ak ñi mu war a administrer waaye ko ci am jafe-jafe war nga am foo ko mun a andee kenn ku ne indi xalaatam peut-être am na ku la ci ëpp gis-gis ñu jàppalante ci loolu ba wàññi problème yi gis ngeen ni maire yi léeg dañ leen jox ay cër. waaye nguur gi pouvoir central foog na ni moom rek moo am cër bu mu jëlee ci constitution boo tax jàpp na ni war na mun a écraser les mairies te loolu day firndew lu bëri bu ci gën a fës mooy léeg-léeg diggante mairie ak les préfets wala les sous-préfets am na sax bu ñu ci signalé fii ci séminaire bi ab sous-préfet boo xam ne dañ ko sutural pour le moment waaye xam naa ni bu déggee li may wax bu mu woote suñu benn maire naan ko andil un million pour participation aux aux élections wala andil cinq cent mille pour participation au 4 avril loolu c'est de l'arnaque détournement la mu ngi dégg bu ko déggee bu mu ko defati ndax bu ko defatee dinañ ko régler ak moom parce que loolu du cëram loolu de boo ko defee ak maire boo xam ne xamul lan mooy ay prérogative am kooku mun na paniquer dem jox ko un million waaye loolu amul cislay amul fondement te warut kon cas yu mel noonu moo tax ñu ne dañu taxawal suñu benn kuréel boo xam ne saa suñu bëgg a bu ñee noggatu suñuy maire wala ñu bëgg leen jaay doole ki ko bëgg a def na xam ni du jàkkaarloo kese ak benn maire waaye Yewwi Askan Wi yépp lay jàkkaarlool leader yi ba ci maire yi ba ci militants yi ba ci sympathisants yi ñun duñu tooñ de prérogative état duñ ko jalgati waaye duñu nangu état central aussi di jalgati suñuy prérogative yooyu yëpp nag moo tax ñu ne dañuy taxawal suñu kuréel tuddee ko réseau des élus locaux du Sénégal en acronyme mu doon réel Déthié Fall nag nee na neewuñu ñeneen ñi ay foo lañu waaye ñun xam nañu ñun ay réel lañu réseau des élus locaux du Sénégal réseau boobu day dajale ñëpp nag yemuñu ci maire yi waaye dañ ko yaatal ba ci président conseil départementaux yi yemuñu ci Yewwi Askan Wi kese tamit maire bu jàpp ni par rapport ak say objectif ak li nga soxla ci xam-xam ak ci façon bi nga bëggee gérer sa mairie mën nga koo am ci réseau des élus locaux du Sénégal <laughs> xamal ni am nga fi sa place tëjuñu ko ci kenn rawatina nag les autres maires de l'opposition tëjaluñu ko kenn waaye dama ne même maire bu nekkul opposition boo toogee ba gis ni li fi nga bëgg a jëmale sa commune ak ñun li ñuy offrir ci plateforme gis nga ko ci suñu réseau bi boo ñëwee am nga fi sa place ñaareel bi mooy jox nañu suggestion élus locaux yëpp parce que budget élus locaux yëpp pratiquement budget municipalité yëpp am na benn ligne buñu ñu woon tuddee bëggoon ko mun na nekk cotisation à l'association des maires du Sénégal ñu jox suggestion tous les maires ñu def virement de crédit voté ko par leur conseil loolu ñu waroon verse ji association des maires du Sénégal nañ ko euh, verser nañ ko revoté ñu verser ko au réseau des élus locaux du Sénégal bi nga xam ne ñoom ci lañu bokk ñetteel bi mooy li nga xam ne droit la texte yi prévoir ko xam ngeen ni am na luy jóge ci état bi di jaar ci association des maires du Sénégal jamono ji mu nekkoon nag benn association mënoon lañ ko verser waaye tey comme ñaari association la nag day jaadu la ca war a ñëw ci réseau des élus du Sénégal ñëw ci la war a dem ci association des maires du Sénégal dem ca parce que loolu àq la te bañuñu ci dara ba ci dem ci devant la Cour suprême parce que noonu la war a doxee un élu est un élu et on a on est sous le régime de la liberté d'association nañu xam ni association yooyu du ay institution du loo xam ne loi moo ko imposé liberté d'association la maire bu mu neex sax nga ne bokkuma ci benn association dama bëgg leer parce que dañuy jàpp ni léeg-léeg ay institution la comme ni assemblée nationale nekkee institution wala commune bi loi moo ko prévoir déedéet amul benn loi boo xam dafa prévoir ni dañu war a am association bu tudd association des maires du Sénégal liberté d'association la daje nañu sur une base j'allais dire corporatiste daa di créer cette association là état bi reconnaître ko ne nag relation bi laa bëgg a am ak association bi daa di dugal ci loi yi ne fonds de dotation bi nii lii jóge fii nii lii dina dem ci association des maires du Sénégal donc bu ñu demee ba am ci ñaar ñaar yooyu yépp ku nekk dañu war a xool moo xam ko prorata moo xam leneen ku nekk lañ ko war a jox ci loolu ñu jox ko ko ñetteel bi mooy lépp luy nag kuréel ci international xam ngeen ni les associations des élus dañuy bokk ci ay kuréel defe naa xalifa moom xam na yooyu bu baax spécialiste la ci am na kuréel yoo xam ne ay CG CGLUA am na yoo xam ne réseau africain yi la am na yoo xam ne réseau francophone yi la les maires francophones am na am na am na yooyu yëpp nag suñu kuréel dina ci abonné te jàpp naa ni mooy doon kuréel gi ëpp doole gi gën a significatif Sénégal parce que mooy li ñu defoon rek ñoom bi ñu génnee ci élection bi ñu gaawantu yuuxu fépp nag daa di coloré carte bi yëpp maro carte Sénégal ne ñoom gañe nañu waaye waaye ku génn ci élection locale gañewoo Thiès gañewoo département wu Mbacké gañewoo Rufisque gañewoo Kër Massar gañewoo euh, euh, euh, Géejawaay gañewoo Dakar gañewoo Kaolack gañewoo Ziguinchor daanaka sax Pikine ni nga fexe ba écarté liste moo tax waaye suñ ko jëloon ci commune commune d'arrondissement yi gañewoo Pikine kooku soo taxee ni gañe naa élection yi da ngay sa bopp loolu nag bu génnee ci association maire Sénégal gëm naa ni Euh, squelettu association moo fa des waaye association nekkatu ko ndax même sur l'international respecté nañu lépp nag waaye dañuy xool les communes les plus significatives suñuy organiser tey année prochaine dañu organiser fii 2023 normalement euh, le le forum mondial de l'économie sociale et solidaire ville de Dakar moo koy organiser forum mondial de l'eau bi ñu jógee gis ngeen njuuj njaaj ñu def ba nangu ko ci ville Dakar mais loolu dootul am ce sera la dernière fois parce que noonu la mbir mi di doxee au niveau international kon ñiy annoncé Sénégal yëpp ni bis ni tey jàppale ni kuréel googu sampu na dina dajale lépp lu ñu am comme élu waaye ubbi na loxoom ci bépp élu boo xam ne jàpp nga ni li doyen Cheikh Gueye di wax nee na association ba la de baax li mu ci xam mooy champion champion du Sénégal en matière de tàgge semaine bu nekk moom tàgge le grand-père de maire et cetera ku jàpp ni nag li nga bëgg ci luy doxal jox jëmmal collectivités local yi parce que dañu war a respecter les collectivités locales askan bi moo leen wóolu fal leen yaakaar leen ci seen localité waruñoo jël maire tuuteel ko doydeel ko ba maire tekkeetul dara ci réew mi ku yaakaar ni da nga war a bokk ci mouvement boobu di jëmmalaat les élus locaux parce que le développement, ça partira de la base pour aller vers le sommet. C'est les maires, les premiers acteurs, les départements, les premiers acteurs du développement. balaa ngay wax feneen ku gis sa bopp ci loolu nag ubbil nañ la association bi am nga fi sa place